kilifa yu yees yi ñu ngi woyal pexe yi ngir mën a fexe ba keesu trésor public am xaalis ci noonee ñu dal di amal jéego yu am solo bokk na ci wàññi train de vie bu nguur gi amal recouvrement fiscal dal di taxawal tamit ay taxes yu yees. régime bi daal bàyyiwuñu dara ay groupe de presse ñu daal di bloqué seen i compte ndax ne fayuñu seen i dette ci fisc ba ginnaaw secteur des médias boobee wàllu numérique bi ñoom itam dañuy ñëw fay direction générale bi ëmb impôt ak domaine yi dina amal ab TVA di taxe ci valeur ajoutée ci yëngu-yëngu ñeel wàllu numérique bi loolee dinañu ko jëmmal ci benn fan ci weeru sulet bi ñu jëm dinañu ca bokk ñu nga xam ne dañuy jaay bien ak service jaarale ko ci ay informatique wala électronique wala ay plateforme yoo xam ne dañu fay amal ay transaction dox ci diggante fournisseur ak client nga dal di télécharger wala nga fësal musique film wala ay faux en ligne daal di tamit mën a denc ak di mën a traité ay données jaarale ko ci cloud ak nu ñuy yoree lii di base de données loolee yëpp dafay am TVA waaye tamit jàng ak njàngale mi ñuy amalee en ligne moo xam formation à distance wala sax wala sax nga amal hébergement yoo xam ne contenu bi dañu koy def en ligne moo xam site ay image wala sax ay texte boobu les mesures nga xam ne joriñ bi ñu dénk wàllu gaf ak réew mi moom moo ko bëgg amal bàyyiwul fournisseurs yi bàyyeekoo biti réew wala ay plateforme yu nu mel note administrative bi di ci yokk ne tax bu yees boobee dañu koy dal di tënk ci koppar yi nga xam ne plateforme bi da koy am maanaam chiffre d'affaires am TVA boobee nag ci Sénégal ci téeméer boo jël yegg na ci fukk ak juróom-ñett yi waaye secteur muy hôtellerie ak restauration ñoom dañu leen ko wàññil ci téeméer boo jël fokk yi rek la ñuy joxe lu ni mel ba mbas mi Covid 19 dooree ba tey jii.